mbokk yi nuy seetaan fii ci OTV jàpp OTV l'officiel OTV sur ñu ngi fii ci Tivaouane ci dëkku Cheikh Al Hadj Malick bu ñu nee dëkku Cheikh Al Hadj Malick Cheikh Al Hadj Malick nag daf fi ñëwoon ci dëkk bi fekk fi ñaari xeeti nit ne kenn ki ceddo lañ ko tudde kenn ki nekk géwél mu wàcc ci dëkk bi ci gàttal fekk fi sunu maam Jibril Gueye ak mag ñi fi nekkoon ñu ne dañuy màggal ba si juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fekk lu jiit loolu def na ko ca ndar waaye bi officiel mu siiw mooy bi mu jëkk def fii ci Tiwaawan waaye lu jiitu mu koy def def na ay démarches seet lenn ci kilifa yi booba mu ngi am gàmm gu caddo gu nekkoon ca booru gaar ba nga xam ne la ko ndënd moo ko seq ak fecc ñuy jëfandiku jëfandiku yu araam mu demoon nag di yëgal Bou Kounta di ko ne ko dama bëgg ñu màggal bésu juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mbaalu xaraam li nekk ci gaar ba du ca bokk moo tax Maodo ba muy woote wooteem ba wax ala azimu laylal wilaadati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraamu xudoolu na ngeen ñëw ay ca leen nu màggal bésu juddu Seydina Muhammad te ñu bañ ci def boole lu xaram maanaam mooy yi xaram yi ko jiitu woon loolu nag mooy dox ba tey a ah, li nu fi indi nag mooy wéy ci ndigal Seex Alxaaji Malik wooteem boobu ay génération di ko uyuse di ko uyuse ba tey jii ñun ñi nga xame ne dafa tegu sunu loxo ñu tamit ñu jog ñox njaboot yeeg bokk yeeg dëkkaale yeeg dëkkandoo yi a ah, dafa di nag euh, gàmm moom am na ñu koy gaaral di wax ne bi daala waaye sëñ Cheikh Tidiane si moom radiyallahu taala dafa wax ne bu dee biddaaw it nañ nu bàyyeek sunu biddaa bu neex ndaxte ndaxte yàlla subhanahu wa taala ndigim mooy wax ak bi di ko fàttali fi mu jaarax aadama di ko fàttali fi mu jaarax Idrissa di ko fàttali fi mu jaarax Huud fi mu di ko fàttali fi mu jaarax Noox di ko fàttali fi mu jaarax Dawda di ko fàttali fi mu jaarax Ilias di ko fàttali fi mu jaarax Yaqoo euh, Yaqoob ak Suleymaan di ko ndigim yàlla moo ko fàttali yonent bi pour fàttali boobu am amal ko njariñ asamaa nun ñu war noo mën a fàttali fi jaar-jaar bi yàlla subhaanahu wa taala jàlla ak jaar ak bi mu doon loolu nag xanaa waru laay mu am lenn tam ci ay nit yoo xame ne dañu am ce sont des otages du livre li tax les otages du livre dañu bëgg indi les connaissances livresques maanaam li ñu jàng ci téere ah jàng téere yu weex yi bëgg ko jëmbal nit ñi te neneen nag si kër gi la aju bari nañ ci nag dañ ne dañu aju si silsila bi Seex al malik Malick jële sa euh, maam Alpha Mayoro Were silsila ba jaar ca Euh, Chérif Mouhamadul Ghali ba jaar sa Cheikh El Omar jaar sa Mouhamadul Ghali jaar ci Cheikh jaar ci yonent bi nee nañu si lañu ñu aju moo tax ñu am kersay wax ne dañu araamal gàmmu ba sax sax dégg naa si lenn na ci bayaankat yi di wax naan dressage yi ñuy def ci gàmmu yi mèche wi ñuy def ci gàmm yi euh, teraanga togg yi ñuy def ci gàmm yi ñu koy gaaral naan nit ñi teguñu ko fen ci waxin maanaam di gaaral waaye man dama jàpp ne ñiy wax loolu ñett leen jàpp benn amuñu lu ñu da amuñu lu ñu jënde mèche wi amuñu lu ñu jënd dressé lu ñu dressé walla seen xol la ñu waxe waaw wala ñu waxe seen xol wala seen xam-xam gàtt bu dee dañ aju ci kër gi jànguñu bayti si alxaaji malik ba man xaqa anhu bi shaati yawma sabihi fa jaddahu saybatal mahmudi zul xukami si alxaaji malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Kerok ba mu mamam maamam saybat alhamdi moko rendil ben gàtt pour terale ko ko keroog ba mu juddoo maamam joojo nag moo wat mamam jojo moko jox tur waaye koo xam ne ba nga juddoo sa maam rendi gàtt xanaa nag bu ñuy màggal juddoom ñu war ko ay xar ko moo tax ñi koy wax ñaare te aju sunu kër nag sunu kër lañ aju di ko soofantal dañu bëgg a weddi gàmmu xamuñu fuñ koy weddee ndaxte fuñ ko weddee weddi seen sëriñ Seex al Hajji Malick ko weddee weddi ka sa topp moo tax ñuy gaaral ñooñu ñi dégg loolu nag fan yi am na ay bayaan yu ñu ci def si jàkk yi te nee nañ si kër gi lañ aju bu leen leen déglu dama ne guddi gii guddi gi ñuy jub nii ku ci am téeméeri xar na ko def teral si gan yonent bi sallallahu alayhi wa ku ci am junni ganaar nang ko na nga saaf teral ci euh, gan yonent bi ndaxte nag yàlla subhaanahu wa moo wax ne man maak samay malayka ñun dañuy julli ci yonent bi waaye yéen def leen ni nun yàlla lenn rek moom lay def wax ne def leen ko man dama koy def man damay julli ci yonent bi julli leen ci yonent bi kon nag bésu gàmmu bi nangeen bari lu ngeen def salaatu alal nabi loolu ñu ngi ciy ñaax ñëpp waaw sëñ Fallou nag radiyallahu taala anhu ni mu ko firee moom dafa xakime inna allaha wa malaikatuhu yasalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman dafa na nun yàlla ñoxi suñuy malaaka nu nga sa tool ja e yéen ñi gëm leen nu fa bu yéeme kon nag gudd yonent benn fi indi ñuy ndokkeel ñëpp nag ndokkeel gi ñuy ndokkeel euh, kilifa yi kilifa aada yi nga xamee ne ñoo yor ndomu tànk yi ci wàllu aada wàllu coutume di di ndokkeel euh, euh, euh, les les autorités coutumières ndey ji réew yeeg saltige yeeg jaraaf yeeg comme foo mënti nekk dañu bari ay jaraaf ñu ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel ndey jàmbur yi di jàkkeel jàmbur yeeg notable yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi di ndokkeel le premier magistrat de la commune de Wakam Mouy le maire di Ndokel, le représentant de l'État qui est le sous-préfet de l'arrondissement des Almadies ba commandant de brigade ba fa nekkal ca de ba ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weer bi ñu ngi ñaanal les autorités les autorités euh, euh, euh, religieuses ya fay yeewoo ah fu nu mant ne xam kër waa Allah waa kër maam borom Touba waa kër waa Sadra Abi ah, ah, de passage may ziyaara du nuyu sama tante maam Binta euh, maam Binta euh, euh, Diagne bu bu bu ba maam maam Souleymane Diagne ah, sama tante Xari Diop Wade ma au passage ñu leen di nuyu di leen ndokkeel si bés bi ah biir nag daf si am benn. avant première bu ci ne choses qui avons dafa jitu ci li organiser fi ñu daan faral di def buñ ne suba la noppalu Nous bu fait le gamu def suñuy defal Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmed Tidiane moo xam fii lañ ma xamee wakaam moo xam ñu ngi ma xamee àddina bi yëpp sur la planète duma leen wax li mu doon ci moom li ma leen man li mu doon ci man a ah, ñu jàpp ci benn bés at mu jot nag daanañ ko def si biir néeg di ko defal ñaan tudde ko bésu noppale bi ren nag ñu jëmmal ko xaw ko jëmmal invité sunuy nit jàng nañ fi alxuraan si suba def nañ fi wazifa def sunu dog ñaan yàlla yàlla dolli leeram ca barzaxu si turandoom yàlla na yàlla dolli leeram fa mu nekk mook maamam si alxaaji Malick ak way juram Cheikh Seydi Aboubacar Cheikh ñañ fa fekk ñëpp sëñ Cheikh nag Moussa laaj na ma sànq nu mel ci yow mu nun day dañu gimmi rek dañu gimmi rek mu mel ni yàlla daf nu branché ak moom ba sànq si tisbaar branché bi tam mu ngi dox ma demoon seeti ki nga xame ni mooy sama bunta ci kër Serigne Cheikh Tidiane tax sama bunta moo nekk fii ci kër gi sama bunta sama digganteex Seydi Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Ahmed Tidiane Sy bii nga xamee ne mooy xalifaam muy Cheikh Mouhamadul Habib yal na yàlla dolli ko wér defal ko wérle defal ko mucc ak muccale nu ngi koy ziyaara di ziyaara Cheikh Mouhamadul Mansour ba nga xamee ne mu nga biti réew ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko wér ak wérle di ziyaara njabootam yëpp soxna euh, ki ne Fatou si euh, bu sëñ si Ahmed Tidiane si ah euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ba ci soxna ki si ba ca Ndakaaru ñoom soxna Umook soxna maam maam Daba njabootu sëñ Cheikh gépp ñu ngi leen ziar si bés bii di ziar Cheikh Mouhamadul Moustapha si bu ibnu Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum yàlla na yàlla gudal seen fal ñoom ñëpp dafa leen wér wér la sëñ Cheikh nag moom. Euh, Moussa laaj ma sa digganteex moom sama digganteex moom moom jamono moo koy firi waaw jamono moo koy firi ndaxte yàlla moom ma booleeg moom ni ma ni ma ko boolee ak ak ñëpp waaw ndaxte tam euh, waxuñu ne li mu tëral li mu tëral ñu ngi ciy jàll waaye dafa baax nga am sëriñ bu baax sëriñ bu baax moom boo ko amee santal yàlla waaw na tey surtout jamono bii boo xamee daf lay orienté nga siy def sa kéemtalaay doole sëriñ Cheikh nag dafa mel ni daf fi bàyyi benn clé daf fi bàyyi benn clé kele boo xamee ne mooy firi jamono lu xew rek ñu ne ah sëriñ Cheikh waxoon na lii lu xew sëriñ Cheikh da waxoon na lii loolu loolu nag ci la ñu toll ba bërki démboo njaay ba bërki ba démb ci anasirul arba li ñu def ci diggante ndox ak taw ah, mu nga commencé Makka sa Kaaba ga ba Madina ngelaw yi fi am yi fa la commencé yooyu yëpp daal daana ci wax moom daal euh, liñ naan nag pata léeg-léeg nit nag di ma firee na damay parparloo mu man mënuma parparloo parparloo ci dara ad man naa nag waxal njabootu Seex al jarak Malick jëpp jaare ko si sëñ si Mansour jaare si ñëpp waaye bu guddee ñoom ñëpp xam nañ ne maa ngi fanaan kër Cheikh Ahmed Tidiane si loolu àddina bépp xam na ko parpar lo, parparloo yonent bi wax na ne képp ku ci dugg bokkoo ci man képp ku dugg ci parparloo bokkoo ci man waaw ñun nak li ñuy def Eh, dañu féete te féete aayul pata sama daxal pombiteer aayul Sénégal nag dañ lay fekk nga jàpp sa pataas ñoo lu tax ngay jàpp patas waaw nan lu tax bëggoo pombiteer bañu ma pombiteer dinaa ko lek, mais patas sama gënal ayul kon nag eh, ñu li ñu ciy ñaan si bés bi yàlla nu ko yàlla nangul ah bésu du jàmm bésu eh, bi ne ñëpp góor góorlu ci salaatu nabi salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi dana faj loo xamee na sax lu ëpp sa njort comme que yàlla subhaanahu wa taala dafa ne man dama koy def def leen ko kon am na lu ne ca biir lu mu àdduwul formule yi bari na ah façon ngi ñuy jullee ci yonent bi bari na yàlla daal neena man dama koy def comme que dama koy def sant naa leen ngeen def ko kon nag am na lu mu nu yéene ci salaatu alal nabi la ma ca xam daal dana far bàkkaar gaaw na ci bàkkaar salaatu alal nabi gaaw na ci jikko ju ñaawoon mu rafetal ko dem ba sa jikko ñaaw mu soppi sa jikko dem ba sa xol lëndëm comme yii xew léegi comme yii nga xamee ne ni dafa xew léegi jekki-jekki rek gis nit bañ ko ndax nga gis nit bañ koo jekki ak yenn xeetu coxor yi am ci àddina bi saatu àll bi da koy dindi dal na nitu yàlla bu mag pour gàttal muy imam Ghazali radiyallahu taala anhu imam Ghazali toog na ba benn jamono xam ne moom mi xolam bi man xaw ma lu tax sama xol bi am lu ci lëndam moom loolu uboon na boppam imam Ghazali radiyallahu taala dem ba xam ne moom kañaan ngi koy sonal dem ba xam ne kañaan mu ngi ëpp boppam moom daal mu dem nag tàggat xolam ah, eh, yàlla dimmali ko ba loolu denc kon daal ci gàttal Moussa fekke amul leen lu nu laaj ñu ngi ñaanal ñëpp tey ji nag Makhtoum Day bi am na sunu mbokk yoo xamee dañ fi ñëw ànd ak ak ñun waaw oustaz Pape a ah, dina ñëw toog fii ci waxtaan wi euh, sunu mbokk Maxtaar Jóob keroog bi sunu goro jógee mag tabaarakallaahu ñépp kontaan nañ ci moom ma ñëw nag sa soxna si ne waaw waaye Maxtaar Jóob moom na ñëw de kon nag Maxtaar ñëw na mu ngi ànd ak euh, délégation bi mu àndal oustaz Pam Mbeng ngi fi a ah, ngeen may ñu nag Moussa bu fekkee ne manul ñàkk ñu gërëm sunu bokk yëpp ñu gërëm sunu soxna wax dëgg yàlla da ngeen may ñu gërëm ko ñu ngi koy gërëm di gërëm sama rakk yi nga xame ne moo xam ñoo bokk benn ween ñoo bokk benn ween lu ma jog ñu jog taxaw si jiital ci ki topp ci man muy Astu Jóob waaw ñu ngi leen mook ay rakkam yëpp ñu ngi leen di remer euh, ñaanal ci jàppale bi ba sunu mag bi nga xam ne Moussa Kane lu ma taxaw nee na ma mënuma ñëw de waaye euh, am na lu téyel téyel ci lii loolu yëpp ci Euh, jàppale la di gërëm sunuñ goro Astou drame ak ñi mu àndal ñëpp waa cité El Hadji Malick ba ña fay yeewoo ñëpp ña say jóge bulga ñoom jaañ jaañ ak ñoom caaceeg ñëpp ak ñoom Tidiane ak Maguette Diagne Ami Diouf Ami Diouf moom da ngeen may may ma defal ko mention spéciale waaw sama xarit yi nga xamee ne ni sama xarit euh, ce sont mes amis nga xamee ne at bu bés bi bu teeroo rek dañuy ñëw taxaw muy Momar Dieng Espagne mu ngi fi ak Cheikh Ahmed Tidiane Dia ñoom Baye Fall El Hadj Ndaw ñoom ñëpp bu bés bi teeroo rek ba ñuy amee juróom-benni at ba tey ñu ñooy ànd mais bu bés bi teeroo ñu taxaw ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di gërëm sunu mbokk Fallou Diagne ah bu ma amee ku ma nga ne xel day fattu euh, làmmiñ tam di barastaku ngeen may ma nag dafa am na ay ñu ñoo xam ne dañ ñu jàppale Moussa Thiam da ngeen may rek may rek ma barastaku tudda leen waaw ndaxte tamit euh, xam nga ne gàmmu gi bu nit ñi dañ fi naan ndox am na ay entreprise presio xam ne dañ ñu jàppale nyu ñu bu baax ñu en ah, yónnee nañ ñu ndox ndox mu bari pour pèlerins yi di ko jëfandikoo di euh, fondation Sonatel bi nga xamee ne surtout fondation Sonatel ñu jaarale ko ci président bi muy Sékou Kona Dramé ba ci administrateur général bi madame Sidi madame euh, Sidibé Aminata Fall ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp Bank of Africa RIA BNDE ñoñu ñaap jàppale nañ ñu ci gàmmu gi ndax dëggal oote Seex Alxaaji Malik boobu ala azzi moojo laylal wilaadati xisbatan isa lam yakul naxwal xaraamu hudoolu ba pare Seex Alxaaji Malik dik ñu se ne ne wa mawliduhu bi sharafun wa iidun fa bi taxzimi yàlla ñu si yàlla boole ci yooyu xeewal yàlla nañ si yàlla boole xeewal ñu ñu jàppale ñëpp vraiment mënuñu leen lim may def mention spéciale pour OTV at mu jot at mu jot ñu ñëw ànd ak wakaam ni jëpp la ñuy àndal euh, euh, gàmmu gi fu nekk dina fa dem si seen télévision nag maa ngi ndokkeel président daayira yi nekk wakaam yëpp moo xam daayatul ahyaar la bu alxaaji buubu njaay sàmb moo xam daayiratul taawunu alal birri wa taxwa xaj ñu xamee ko ci kiraam bu papa ba papa wadd Ablaye nekk ca Ablaye wadd nekk ca mambay moo xam daayira papa Arona Fay ca guy soor daayira aqibaul ca bu nekk ca wakaam daayira mu mutahabina fillah daayira muxlisin daayira marché daayira cosaan yooyu yëpp ba ci daayira militaire yi ñu ngi ndokkeel ñëpp jaarale ko si Massamba Gueye euh, euh, yal na yàlla euh, ful seeni fan may leen wér ak wér le ah Moussa daal def naa ne bu fekkoon li nga doon laaj amul leneen looy laaj ah ñu def ñaan bàyyi sunu mbokk yi ñu ñëw oustaz Makhtar ak ñi ñu ñëw nag barkeelu rek ci euh, genn wàllu guddi gi fi yi nga xam ne moom la ñu nekk ni di si def tudde ko si Sidi Ahmed Tidiane si almaktum moom mi nga xamee ne ni moo nu yóbbaale géew xam nga ku wax ñett fii la ko waxee maa ngi fi toog kenn du dem si Cheikh na yi Chérif te tàgguwoo ma wax fii ne sëriñ Babacar si maa dox seen diggante ak moom kenn mënu leen dog loolu garanti bu ni mel mënuñu ko am moo tax bés bii ñaari garanti yu rey yii moo tax ma ne nag naa koy defal ñaan na te kenn defalagu ma ko gisagu ma nag ku ko defal nit allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim